waa dañuy sant yàlla ndax siège bi ñuy inauguré responsable APR yi ñun ñëpp dañ ko yàgg bëgg moo xam cogère la moo xam cadre yi la moo xam jigéen ñi la moo xam mouvement bi la yëpp moo xam allié yi la yaakaar naa ne am sa sanc bopp day gën a màndargaal la nga ne fulla ak bi nga ko jox kon tey du am kilifa gu mel ni président Macky Sall mu jiite alliance pour la bi nga xam ne ca la ñu bokk jiite coalition Benno Bokk Yaakaar am taxawaay bu mucc ay ci réew mi benn rekk ci firndeel hôpital yi nga xam ne inauguré nañ ko diggante Kaffrine ak Kédougou te ñuy waatal waajal bu Sédhiou ak yeneen mu nekk infrastructure yoo xam ne sénégalais bu ko xool sax xol dafa war a sedd sa xel war a dal ci taxawaay bi nga xam ne président Macky Sall taxaw na ko pour def équité territoriale kon tey gannaaw bu ñu génnee ci yu mel ni mbas mi nga xam ne réew yu bëri dañu yegg suuf daanu ñun ñu fexe ba taxaw suñu croissance nekk croissance positive ñu gis réalisation yi nga xam ne président mi Macky mi ngi koy def waxuma sax depuis 2012 depuis 2012 ay réalisation am dafa fekk mu doon jiitu réew mais laata loolu am na liggéey yu mucc ayib yu mu def ci réew mi kon ñun bu ñu bokkee ci njabootam gis mu yore taxawaay boobu gis muy liggéey liggéey boobu li ñu ci war ñun mooy taxaw jëmmal loolu wane ko jàpp ko wax ko doxee ko te nag day bokk ci ñu am suñu makaan di ci waxtaan ak nit ñi ci loolu kon dañu jëm ci ay jongante yu am solo muy ay jongante gox-goxaat ñëpp xam nañu président dafa ne politique de proximité moo tax mu ne équité territoriale kon tey gox-gox bii ñu nekk muy Sicap Liberté ñun ñi fi ne ñëpp muy militants yi nga xam ne ñoo nekk APR muy ñi nga xam ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar ak mbooleem askan wi nag ndax tey ñëpp a wuy si ànd nañ laxasaay ne dinañ jàppale président Macky Sall ndax buñ ko jàppalee defaluñ ko kenn ku dul réew mi te ñun ñooy réew mi kon buñ ko jàppalee suñu bopp lañ ko def alors euh, euh, ndaw ndaw yi tab nañ la pour nga nekk euh, maire ci Sicap Liberté échéance yu ñu dëmbal loolu yaa ngi koy dëggal wala pare nga pour ñu ngemboo la nga dem. xam nga ndaw yi tab ñu rafet na. ñu leen di sant di leen gërëm waaye ñun ñii ñëpp ñun ñoo njëkk a tabb suñu bopp rawatina man mii nga xam ne dama bokk ci gouvernement bi président Macky Sall ñu xam li mu bëgg xam li muy mbébét mu am pàcc yu am solo yoo xam ne daf ñu ko si sant bërki démb rek la ñu adopté assemblée nationale loi d' orientation relative à l' économie kon yooyu nga xam ne président di ko def balaa du ñu xaar kenn ku ñu tabb dañuy tabb taxaw ndax loolu moo ñu war tey ñun ñëpp dañu war a taxaw xeex ngir bëgg-bëgg ak yéene ak taxawaay bi nga xam ne président Macky am na ko ci biir réew mi ñu jëmmal ko ñu fësal ko ñu doxee ko waxee ko kon loolu moo ñu tax taxaw fii te lépp lu ñu ci sas sant duñ ko danañ ko gàdd incha allah. Zahra Iyane Thiam partout. où le parti, la coalition, le président de la République me pointera ou m'indiquera.